suñu bon comité directeur bi il y a pays yu fa nekk euh, donc on a sur les 192 pays il y a yu nekk ci comité directeur u euh, expo bi ñooy jël yenn décisions yi di ko yéegal hmm. euh, Sénégal moo yore vice présidence bi d'ailleurs ñuy waxtaan ci affaire les conditions sanitaires et pays bu nekk lan la war a kii man ce que j'ai proposé et je l'assume dama ne dans toute délégation ku war a ñëw da nga na nga ñàkku que muy nekk une obligation obligation. Mm. c'est c'est ça xam xam mm. nga tey. et et j'étais fier de dire que ñun suñu réew commencé nañ commencé nañ di ñakku taxaw y des européens qui ne pouvaient pas le dire donc euh, aussi ñun il faut que ñu ñu dem vers ça. Mm. Euh, c'est-à-dire que tey euh, euh, doomu Sénégal nañ xam ne kooku c'est ça ça va devenir obligation mm-hmm. Mm-hmm. parce que dinañ toll foo xam ne passeport vaccinal la ñu laajte mm-hmm. donc je pense que c'est quelque chose de très important maintenant le, le message mm. euh, li may wax rek mooy c'est un message adressé à tout le monde ah les ministères euh, les, euh, les les agences d'exécution li nga xam ne mooy les directions générales sur le plan institutionnel les collectivités territoriales mais également secteur privé sénégalais dafay une rencontre des rencontres extraordinaires gis nga nit ki di nga dajeek benn membre d'un secteur privé sa change totalement deminu sa sa sa sa entreprise mhm. benn benn partenariat ngay signé mhm. nga nekkoon entreprise ba niveau niveau niveau un yegg si niveau cent mhm, et loolu expo rek moo la ko mun jox en tout cas sur le plan sur le plan international et je crois que au fur et à mesure on va continuer à communiquer kenn mi ngi doon wax fii Euh, si communication bi mhm. euh, dëgg la manqué nañ communication il faut que ñu waxante mhm. dëgg aussi mhm. c'est important euh, parce que des fois da ñëw def benn émission wax wax wax tuuti ñun la mais man musuma xam ne lii am na et cetera dañu am problème sur ce plan là loolu war nañ gën a gën a insister sur saa gën a gën a gën a ñaax suñu bopp mhm. parce que suñu suñu lacune la parfois mhm. donc c'est pour ça que ces émissions là sont des émissions quand très importantes mhm. Euh, pour que ñu mën a gën a discuter ak nit ñi wax rek ñëpp impliqué aussi et di wax ne que yenn secteur d'activité yi euh, c'est pas parce que yi demoo Dubaï que nekkoo Dubaï cest à tey euh, bu ma bu ma gisee Pape Djibi mi ngi ci secteur Euh, defar euh, defar euh, nu mu tuddati ñaw yére couture bi mm-hmm. moom yóbbu na dem na ci expo ba outil partenariat mm-hmm. mais tailleur bi nekk ci ginnaaw informaticien bi nekk si ginnaaw et cetera s'il y a cent personnes derrière mm-hmm. ñoo ñëpp ñu ngi ci expo bi donc du question dem naa ñàkk naa dem mais na ñu préparer ñi war a dem de telle sorte que voilà voilà ñu que <coughs> ñooñu bu ñu demee ñoom ñooy def les négociations commerciales ñooñu tam ay ambassadeurs lañ Pape Cheikh. Mm-hmm. Mm-hmm. dem représenter Sénégal ay ah, ambassadeurs lañ. et je pense que surtout la destination Sénégal mën nañ ci mm-hmm. pro mën nañ ci profité bu baax. tout même le tourisme culinaire bi ma doon wax keroog. il faut que les gens travaillent là-dessus. oui sur sur ça également c'est c'est important. <laughs> temps bi parce que nous euh, am na am dañ doon discuter avec euh, avec un certain nombre de. Euh, d' acteurs yu nekk sur le plan culinaire euh, ñu gis que ne am na kenn ku tudd Pierre Thiam qui est très connu à l'international qui travaille sur euh, le made in Sénégal mais gastronomie sénégalaise ñu ne mais le 13 il faut que ñu xool naka la ñu fexe ba cette gastronomie sénégalaise ñu génnee ko parce que gastronomie boobu tourisme mi ngi ci diplomatie mi ngi ci économie mi ngi ci tey jii nii la la la nu ti tuddati bëgguma def seen publicité mais mm-hmm. mais euh, kii les italiens bu ñu nee bu ñu nee pasta. Mm-hmm. foofu la fekk baax. Mm-hmm. Sénégal il faut ñu ne ceeb foofu la fekk baax. parce que ñu ngi ñu koy bëgg a bëgg bëgg jël bëgg a jël. am na ñu naan jollof rice jollof rice bu ma ne Nigérians yi man bu ma dajeeg ñoom dama ne non no non. ceebu jën ceebu jën c'est Sénégal. Ah, jollof ah. rice du du donc yooyu yëpp tamit il faut que ñu liggéey.